واجبا دايلا Il en est ainsi depuis plus d'un siècle. Depuis qu'un homme que rien ne semblait prédestiné aux yeux de ses contemporains à l'inspiration divine autorisant la grande exhortation à appeler ici, sur ces terres gagnées jadis par l'idolâtrie, les hommes et les djinns à venir à ses côtés adorer le maître des cieux et la terre. bismillaahi rahmaani rahiim ñu ngi sant yàlla di ko weetal di ko ñaan mu julli te sëlmal ci sunub sang muhammad alayhi salaatu wassalaam di ko ñaanal di ñaanal waa këram ak ay saxaabaam ak soppeem yëpp ba keroog yàlla di jël suuf mu ngi am mbégte bu baax a baax siwaat ak yéen ci seen jotaay di daaray limaamu ci édition bi nga xam ne moom la ñu jagleel cent quarante deuxième anniversaire bu appelu Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wassalaam di gërëm bu baax comité scientifique Layène bi nga xam ne ñoo ñu euh, jox responsabilité bi di ñaan liggéey bi nga xam ne moom lañ sumba boobu ba léegi suñu boroom nangu ko jafal ñu jàppandal euh, fil awal wa fil axir ci tàmbale beeg bu ñuy tëj tey ñu am mbégte bu baax a baax euh, jàkkaarloo soppe boo xam ne bu am solo la ci communauté bi xam naa dañuy tàmbale nuyoo yi nuyoo ki nga xam ne mooy xalifatul muslimin di sayiduna muhammadul maxtaar di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te am wér di ñaanal ay rakkam ñaanal njabootam waaye ñu ngi ñaanal aussi kilifay lislaam yëpp ak fépp fu ñu mën a nekk ci kaw suuf donc di am mbégte comme ni ma ko waxee sànq Cheikh Daoud seq ak yow jotaay di la bàyyi nga nuyoo nga nuyoog ñi nga xam ne ñoom ñuy seetaan. bismillahi rahmaani rahim auzu billahi min asheytaani rajim laa hawla wala quwwata illa billahi Seydou Bara xam naa ne tey moom jotaay dañ ci am mbégte bu yaatu. lu war waral mbégte bi gis liggéey bi nga xam ne ne yéen a ci boobu ba tey damay ne tey daara ji dañ ci war a ñëw di taataan si daanaka jotaayu taataan laa ko nattee waaye nag balaa ñuy tàmbali dañuy jaaree ci sa nuyoo hmm. ah nuyu xalifa bi hmm. ak ay rakkam ak i axulaay bi yëpp waaye nag di nuyu bépp ay ma suñu borom sàkk waaw am yaakaar ne ne lépp luñ fi rotal hmm. dina am jeexital ak génn ci jaamu yàlla yi macha allah Cheikh Daoud ci sa présentation mën nañ wax ni taalibeb Seydina Limaamu Laay nga alayhi salaatu wasalaam di membre ci bureau exécutif bu Nourul Mahdi mais doon aussi entrepreneur nekk business stratégiste nekk coach en développement personnel nekk koo xam ne bokk nga ci ñi initier plateforme bi ñu tuddee Laayante Biir muy plateforme boo xam ne day lëkkale di dajale ñi nga xam ne ñooy entrepreneur ak professionnels yi nekk ci communauté bi bokk aussi ci ñi nga xam ne ñoo initier projet bi ñuy tuddee Zakatul Mahdi nekk le fondateur du mouvement nit nité lan nga ñu mën a yokkal ci présentation boobu. waaw pour nga xam ne daanaka li nga ci rotal sax yaatu na. Mhm. waaye présentation boobu li ci am solo moo ñu xam ne ne ne eh, am yéene nekk taalibi rek moo ñu waral ñu jaar ci jaar jaar yooyu yëpp. macha allah waaye lu ne aussi si àdduna dafay am sabu fu muy tàmbale. Mhm. ku nekk ñaari anam. mooy tax nga dem ci yoonu. Mhm. soppi sa doxalin. maanaam mun nga am mbégte. nga jàngat ci wala nga am naqar nga jàngat ci waaye yàlla dafa def ñun ci naqar nañu jàngatee pour gindeeku mën a tegu ci yoon boobu macha allah Cheikh Daoud ñetti ata ngi comité scientifique Layène proposé thème central lu appel di le de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme mooy nan la yar mën a nekkee loo xam ne dina am jeexital ba fegal nit li ñuy tuddee ëppal may ko li ñuy tuddee équilibre Euh, waaye at mu jot rek day mel ne thème boobu day gën a lan ngay commenté ci loolu. waaw jàngat bu ndaw bu ma ci am mooy man sama wàllu bopp léegi mu jege ñaar fukki at. maa ngi gëstu ci loolu. est moo tax tey damay ne thème boobu juróomi at fukki at téeméeri at taxul ñu jeexal hmm. waaye li ci am solo mooy saa su ne luñ ciy jukki rek mu am jeexital. ndax du lu nga xam ne ne dañ ci war a am luñ ci jàpp waaye dafa war a am luñ ci dundee xëy na bu ñu tuusee ci waxtaan bi dinañ gën a mën a gis loolu donc daal nekk na thème bu nga xam ne dañ ci am mbégte ñu taxaw ci waaye nag dañ ci am yéenee nit ci am ci jàngat ñu mën a mën a am jeexital macha Euh, comme ni ma ko waxee saxan Cheikh Daoud euh, yaa fondé mouvement bi nga xam ne mu ngi tuddee nit ak nite tey suñu numéro bu njëkk ci daara Limaamu édition appel 2022 comme ni ma ko waxee sànq dañ ko jagleel thème mooy jàngat li ñuy tuddee nit nite tey boo ñu doon faram-fàcceel tekkil ñu baatu nit lan nga ñu ci mën a wax. waaw nit liñ ci mën a wax bëri na waaye xëy na liñ ci mën a jukki. Hmm. waaw liñ ci mën a jukki mooy ki nga xam ne ne. suñu borom daf ko sàkk ndax damay ne ne tey xëy na ñun li ñuy wax laayeen laa balaa ngaa doon laayeen nekk jullit balaa ngaa doon jullit nekk nit nit a jiitu mm-hmm. waaye nit kooku suñu boroom tey dafa am nu mu ko sàkk am nu mu ko mooñee lu tax ñu ciy taxaw bare barewaan na tey ñun suñu wàllu bopp balaa ñu ciy gindeeku kuus nañ ci lu yàgg ndax kàllaama yi ñu jëfandikoo wute na dinaay wax olof dinaay wax français dinaay wax yeneen mais tey boo ñëwee ñu gis ne baatu nit boobu ku nekk daanaka nuñ koy waxee ñoo niroo dañ ne nit dal la ruu la ak jëmm mm-hmm. tubaab bi di wax esprit ak corps mm-hmm. waaye damay ne dafay jaral taxaw ñu xool ndax ñun tey ci anam diine diine dafa am ñu leerale nit kooku li am solo nag mooy mën a ràññale nit ki ak tey ni mu taxawee lu tax may wax loolu barewaan na tey bu ñu jëlee ci tradition yi njëkk yi lu mel ni grec yi li ñuy wax ñoo bokk waaye ni ñu koy qualifié bokkul ndax am na ñu nga xam ne dañoo jàpp ne nit ki diggante ruu bi ak jëm bi jëm bu baaxul ruu moo baax ñu demaat jamono am na ñu nga xam ne tey dañu nit dañ ko mooñaale bàkkaar maanaam lu nit yi di wax péché originel daanaka tey moom lay sotti ci kaw suuf waaye naka la diine indee kii kon dañuy wax ne ne diine ñëwul qualifié moralement nit ne tey ruu bi baax na wala jëmm bi baax na wala ruu bi bon na wala jëmm bi bon na kon dañuy ne nit ki dafa am ruu bi am nafs bi am diine mm-hmm. ñetti mbir ñetti mbir la bokk kon tey dañ ciy réer nag ndax léeg-léeg ñu ne la ah lii de nafs la mm. waaye nafs mooy lan nafs mooy nekk nekk ci diggante ruu ak jëmm tant que mënuñu taxaw ràññele ruu bi nafs bi ak jëmm bi damay ne dafay jafe ñu tàggat nit ki ndax ñett yooyu tey ñoo yore nit waaye nag bi ci digg bi muy nafs boobu mooy li nga xam ne ne moo sonn nit kon kon euh, su ma su ma déggee bu baax mooy donc nit pour mu doon nit sax il faut dimension équilibre boobu ñëw maanaam digg doomu il faut ñëw saa yu jëlee jëm ci benn boor bàyyi li ci des rek dootul te diine dafa ñëw pour euh, jàngal nan la ñuy amee équilibre boobu est-ce mën nga ñëw ci définition diine déjà. waaw diine tey dañ ci dañuy wax ne bu ñuy woowee soumission muy tënku tënku hmm. jëmale sa borom waaye dama ne bu ñu fàtte ne suñu borom moom moo ñu cëral teg ñu ci kaw suuf nañu man maa sàkk suuf waaye yéenay xool ni ngeen ciy dunde kon tey nit ki moom lay neex mu jéng ci lu baax comme moom lay neex mu jéng ci lu bon waaye li may fàttali toujours mooy nit dafa dafa lëndëm wala daf koy faral di wax mm, lëndëmaay boobu nag mooy dafa am li nga xam ne ne ne contradiction la ci moom diggante lu koy xëcc ci lu baax ak lu koy xëcc ci lu bon mm-hmm. kon tey pour ñu dégg diine dëgg mooy ñu xam li nga xam ne moom la nit ki war a def pour tënk boppam jëmale ci lu baax mën a bañ a dugg ci lu bon te lu tax aramu nit boobu am solo damay ne chaque jour léeg-léeg nit doxal ba ñu ne ah kii de moom léegi de mi ngi niroog malaaka nit du malaaka waaye nit du malaaka nit du malaaka waaye du malaaka kon diggu doom bu ñuy wax mooy tey waroo waroo xaabaabal ba mel ni malaaka hmm. waaye tamit waroo sàggan ba mel ni mala hmm. loolu ñu fàttali euh, li nga xam ne yenn saxaaba yi ñëwoon nañ pour ci euh, sang bi alayhi salaatu wasalaam pour xool hmm. ak jaamoom nu mu demee ñu gis euh, ne maanaam tey ni mu doon yeewoo di taxawal noonu la doon nelawee di nangam ba leeral gam ci leeral ne sama diine lii la maanaam tey damay nelaw damay yeewu damay feebar damay damay donc muy mu nekk lu am solo loo xam ne tey dañuy delluwaat toujours ci fi ñu tàmbali woon mooy dimension wu boobu kon tey ci wàllu yaru diine hmm. tey lan nga jàpp ne moom la yaru diine mën a jeexital ci doomu aadama ba man koo may équilibre boobu ba nga xam ne dundam ci kaw suuf dina nekk dund gu yëwén goo xam ne dina ci mën a am bànneex waaw yaru diine dafa indi lu matale ndax tey foog naa ne ku ko bëgg ak ku ko bañ am na ci yar yar bu am jeexital ci yow ndax doomu aadama dafa dox am nu mu tëggee àddina foog naa ne tey fi ñu toll nii nii nii ah néew na ñu nga xam ne ñu ngi am yitte ci yàlla mm-hmm. lu ko waral mooy tey dafa dem nekk lu nga xam ne daanaka dafa rocceeku seen loxo ndax tey di nga am ak ndaw ah xool nga xool waaye gis nga ne tey xarala yu bees yi mu ngi koy tere nelaw mm-hmm. lu ñuy wax tey fu mu koy yóbbu kenn mu ni ko nag ndax foog naa ne tey ñun am nañ ci jàngat yu ndaw bu ñu demee tey ba ndaw ak lu laay dugg ci xarala yooyu am lu muy wax ay kilifa foog naa ne ne boobu waajur yi am na lu leen rëcc. mooy xaabaabal nag tey fi ñuy mooy ci réseaux sociaux yi. mooy xarale yu bees yi. mooy xarale yu bees yooyu ñuy wax. dafa nekk lu nga xam ne dafa jar taxaw. waaw léegi tey est-ce que diine dimbale nañu ñu am taxawaay bi wax foofu damay ne sang bi démb am na lu mu ci jàngale waaye ñëwam bi tey dafa jàngale lu ndax tey buñ ne yar faw nga xam nu ñuy yare ci jàngat bu ndaw xam nañ ne am na ñetti yoon yu nga xam ne ne tey yar da ciy jaar ñetti yoon ñetti yoon waaye nag yar dafay tàmbalee ci xale léeg-léeg ñu ne ah yar mag jafe na yar mag lu mën a nekk la waaye lu jafe la ndax dafay am fu mu toll waaye ndaw yar ko dafa gën a jàppandi waaye ci ku xam ndax tey barewaan na ñu nga xam ne dañuy ne ah kii de xale la nañ ko bàyyi su màggee dina xam loo nekkul taalibeem nag waaye sang bi daf ci am lu ci indi lu am solo ñu gis ne tey ñetti dimension yooyu ma la wax li ci ëpp mooy tàggat tawxiid bi ne ci nit mu ne la tey yow waajur bu jigéen bi doom gi balaa muy gane sax nekkal ci kalimatu laa ilaha illallah kon tàmbali na yar gi tàmbali na ndax ki nga xam ne ne ganeegul nga koy waajal su ganee bu mu ko dee gën a yomb maanaam yar nga doomu aadama bi laata muy gën a àddina a ndax yow am na ki nga xam ne ne tey wan na la a jaar ndax comme ni mu ko waxee léegi ci yoon yi ñett yi benn bi lu ñuy wax yoonu interaction la maanaam tey ndaw li fi nekk ci environnement wam dafa am lu bëri lu muy am jeexital ci moom moo waral tey jamono fu mu toll ñu bëri am jafe-jafe ndax environnement bi gën a yéeme mooy environnement wu réseau yi tey ndax bu njëkk ba danga nga naa ah, sama doom fan lay nekk waaye tey dina toog sa kër toog sa wet nekk fu nga xam ne ne yow mënoo ko sax natt muy lu yéeme waaye nag tey lan moo ci saafara kooku ci benn yoon beneen yoon bi muy yoon bi nga xam ne ne tey dangay jël sa doom di ko tere di ko digal loolu yoonu yar la mm-hmm. defal lii bàyyi lii mm-hmm. léegi nag ñu boole ci yar bi ci boppam bu ñuy wax mu nekk lu nga xam ne tey su bàyyiwul lii di ko dóor waaye damay ne est-ce que tey loolu mooy anam bi gën a jàppandi ci yar hmm. Hmm. mais bi ëpp doole ci yar mooy ngay yar nit ki ci yow say taxawaay bi nga mel hmm. maanaam imitation boobu ñuy wax ndax xale tey balaa mën a wax dina jëf yow looy jëf est-ce que. te wax ak yow waaye yaa ngi koy yar ci li muy gis ngay def waaye kon est-ce que yar tey ay wax la wala ay jëf ci jiitu loolu nag sang bi daf ko lijjanti ndax damay ne bàyyi laay ba mu ne roy leen ma waxul roy leen ma ci wax ba pare déedéet dafa ne roy leen ma ci jëf dëgg la ak ci wax barewaat na nag tey ñu sama compagnie gi buñ ne nii dañ ne bàyyi laay roy leen ma ci wax man leen déedéet. nañ ko wax ni mu ko waxee. <laughs> nañ ko wax ni mu ko waxee. dafa jiital jëf. moo tax jëf jiitu wax. ndax tey ndaw boobu. mooy xale bi doog a juddu. muy doog juddu. naata muy wax mi ngi jëf. mi ngi jëf kon xëy na tey booy xaar mu wax pour nga mën a saafara ren am na lu bëri lu la tàmbali rek ci yar moom. kon tey anam bi ëpp doole ci yar. mooy yar ci yow ni nga mel. nga yar ci ndaw ñi mu ànd ak yow mag waaye léegi ñu gis ne ne ndaw moomu diggante bu muy am at bu muy am juróomi at mënul di xalam kon dañuy bàyyi xel bu baax a baax ci lépp lu nga xam ne ne ñu ngi koy wax ci lépp lu nga xam ne ne ñu ngi koy jëf ndax tey bu tollee ci commencé xalam da ngay ne ah léeg nga dégg ndaw wax lu nga xam ne da ngay ne waa kii moom su mu jàngee fu mu jàngee li dëgg la waaye mënu ko jàngee feneen fu ñi mu nekkal kon tey bu fekkee ne ne ne diine indil nañu anam bi gën ci yar ndax foog naa ne ne diine programme la indi sang bi démb programme bi dafa am lu mu ci joxe waaye dama ne ba mu ñëwaatee daf ko motal sëkk ndax diggante ponk lislaam yi ak dundu lislaam ñaari mbir yu mottalante la ndax foog naa ne démba jàngalewul diine ni mu ko jàngalee tey luñ ko jàngalee démba wax na konk yi waaye damay ne tey dafa ñëw taxaw ci lu nga xam ne ne mooy di central mu ne diine laayante biir la man sama laaj mooy tey nit ki bu fekkee amul lu ne ci moom nu mu koy joxe maanaam tey yow mi bëgg a yar yaru diine bu fekkee diine nekkul ci yow noo koy defee ci ndaw loolu kon dañu war a taxaw ci li nga xam ne ne moom la diine indi ci lu baax ñu xam ko mooy digle yi ci lu bon ñu bàyyi li diine tere ci lu bon loolu nag muy liggéey bu jafe ndax barewaat na nit fu muy amee jafe-jafe ñu ne ko deel jaamu yàlla waaw naam suñu borom daf ñu fi indi pour ñu jaamu ko mais deel jaamu yàlla tontu bu tënku la lu tax tontu bu tënku la nakk la ñuy jaamu yàlla jaamu yàlla génnul yow nga liggéey ci jihaad jëmale ko ci sa bopp ba mu mel ne li mu jàngale woon démb alayhi salaatu wasalaam ndax euh, diine suñu borom ci moom la ko mottale moom yonte yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ci ñaari wàccuwaayam ndax ba muy nettali waxoon na ni yonent yëpp dañoo mel ni ab nekk boo xam ne yàlla def ko tabax ba mu rafet mu manqué brique boo xam ne man maay brique bi man muhammad ci ñaari wàcc wàccuwaayam yëpp loolu firi hmm. wax ji ñuy wax naan mën a démb mën a tey mu mel ni bari na loo xam ne jàngal jàngal nañu ko dem mais peut-être dégguñu ko wala boog jamono tolloogul fu ñu koy firee mais tey boo delloo bu baax a baax euh, ci ci ci ay jàngaleem da ngay gis ne alayhi salaatu wasalaam lépp loo xam ne tey sax ñu ngi koy dund ci ab wàccuwaayam jàngale woon na ko ci wàccuwaayam bu njëkk hmm. euh, ndax matal na diine ndax loolu suñu borom moom la ko moom la ko mujjee wax mais mhm. tey matal naa diine mhm. donc ñëwaatam day nekk yeesal diine jooju mu ñëw comme ni nga ko waxee sànq dem ba ba mu génnee ci benn xare dafa wax wax ju am solo muy mhm. déclaration boo xam ne defe naa jullit yëpp nañ ci bàyyi xel mooy jihaad ak ni mu mettee doomu aadama mën a maye bakkenam nga xam ne defe naa ci wàllu sax psychologie wu doomu aadama dund ak des bi dafa nekk loo xam ne dafa yàgg ci doomu aadama mm-hmm. maanaam fexe béel fi ba mm-hmm. doo dee mm-hmm. bu doomu aadama nangoo dee nangoo joxe deretam ngir lislaam mën a taxaw yonent bi génn ci jihaad boobu ne leen ah génn nañ ci jihaad ju ndaw ji ñu ngi jëm ci jihaad ju mag ji muy bu nafs mu ñëw feddaliwaat ko ci axiru zaman ci jamono joo xam ne dëggantaan ci lañu ñu toll donc tey euh, day wane bu baax a baax di firndeel euh, li nga wax mais bëggoon naa nga ñëw surtout ci dimension wu euh, tey yar boobu ñuy fekk ci kër seen rasulullah alayhi salaatu wasalaam nan la xiiree nit ñi ci li nga doon wax sànq ci wàllu équilibre maanaam ci wàllu matal maanaam concept matal boobu nga xam ne euh, si carte booleek ak matal gi libaas ñoo doon wax nan nan nga koy nan nga koy firee ci ci yarub diine boobu ak impact bi muy am ci loolu dëgg euh, ne dafa am ñett mbir yu nga xam ne ne daanaka sang bi daf ci am lu leer luñ ci wax te mag ñi démb daan ko dundee tey mu jafe. ñetti mbir. maanaam kër ga moo jiitu. ndax lépp rek ci kër gi la tàmbale ndax foog naa ne sang bi bu ñëwee tey. ndaw mi juddu. ñu laabal ko. di góor. ndaw mi juddu jigéen ñu may ko bum. comme am na lu mu tàmbali ci kër gi. ci wàllu yar ndax foog naa ne nit sas bi ëpp solo ci moom mooy responsabilité boobu mu nangu ko xam li ko suñu borom digal li ci war xam li ko suñu borom tere bàyyi ko mm-hmm. barewaat na nag ñuy mën a teg responsabilité mais loolu moo ëpp solo kon tey kër gi moom la sax bu njëkk di jëm donc bu ne kër gi mooy lépp lu jëm ci toppandoo ndaw ak njaboot gi d'une manière générale mais comme li may wax ndaw ñooñu. ñaari way dencante yi ñoom ñoo koy taataan. Mhm. tey ci jamono bi man damay woowee sama bopp ab laayeen mhm. am soxna buy woowee bopp ab laayeen waaye est-ce ñu ngi dund li sang diggante ñu la koy woowee ak nga koy woowee sa bopp wute ba gi ñu ñëw ci jàkk ja tey moom lañu teg ci kanam ndax jàkk ja bi maanaa est-ce que mooy ngeen daje fa ci jàkk ja ñu gis la yaa ngi def say waxtu juróom waaye damay dafa am dimension jàkk ja bu sang bi indi bu nga xam ne ne dese nañ koo dégg te jamono tey mu ngi koy tàmbali di jëfandikoo ndax diggante zikr muy sikar sikar mhm. am na lu muy def sa diggante ak sa borom dëgg waaye fikr muy xalaat xalam xalam mhm. am na lu def sa diggante ak sa borom sa morom sa borom sa borom toujours maanaam suñu diggante ak suñu borom zikr la ak fikr maanaam di tudd suñu borom di ko fàttaliku mais di ko xalam di ko xalaat bu ci ne nag dafa am lu muy def sa diggante ak sa borom ndax damay wax ne mhm. ku lijjantiwul diggante ak boromam du mën a lijjanti diggante ak moromam <laughs> ndax lijjanti bi ngay lijjanti sa diggante ak sa borom mooy tax nga gën a xam sa bopp ndax suñu borom dafa nañu xam leen ma balaa ngeen may jaam waaw pour nga xam sa borom faw nga xam yow pour nga xam sa bopp sax faw nga xam sa borom ndax moom moo la sàkk kuus bi ngay def ci wàllu zikr ak kuus bi ngay def ci wàllu fikr daf lay gën a xamal sa borom bii def lay gën a jegeel sa borom gën na yaatu rek taxaw kàbbar julli. gën na yaatu. ndax dimension yooyu buñ ci dox nañu gis ne ne ah ndekete yi day mun nañ ne addina bi yëpp jàpp. donc est-ce que donc ci loolu la ñuy comprendre li Seydina Limaamu alayhi salaam di wax ni tudda leen yàlla foo leen mën a nekk leen ko foo leen mën nekk. est-ce que ba muy wax lool nee leen nee na fii ak fële de foo leen mën a nekk. ndax tépp foo nekk rek mën nga fa zikk waaye démb mag ñi la nañ daan def. bu leen fekkee ci kër foo leen mënta fekk ci jàkk ja ñu sikar foo leen mënta fekk ci tool ba ñu sikar loolu leen daan dund kon jamono dox na mu am lu bari li nga xam ne moo ñu sonnal mooy ut li ñu jàpp mooy ndamu àddina ndax damay ne tey nit ki day juddu ay waajuram def yitte pour mu jàng jàng lan xam-xam su amee xam-xam pour lan am diplôme diplôme bi jeexital pour lan mën na liggéey ñu ne ah kii de tekki na ah, damay ne parce que tey lii tekki bu ñuy wax noonu moom la diine natt na mooy tekki une grande question laaj bi nga xam ne ne ne ah, sonn nañ ci ñun lottu nañ ci balaa ñu si am as tuut du ma ne nag li ma ci wax loolu la waaye am nañ ci as tuut mais tey nan nga koy définir waaw ñun liñ ci jàngat lu ndaw rek. dafa am ñett yu nga xam ne ne ñooy waral tey ci wàllu diine nga mën am yaakaar matal comme ni ko sang bi waxee ndax sang bi dafa ne roy leen ma ci jëf ak ci jikko bu ngeen matale kon tey àddina bi ab jullit mënul taxaw wax waxu succès. Mhm. di nga am résultat yoo am mais yow munoo jàpp ne da réussir. donc donc selon yow succès ci matal lay nekk. ci matal lay nekk. muy matal ci ñett yooyu ñu doon wax sax mooy développé nga ci kër gi jàkk ji mais lan nga ñu mën a wax ci tool yi. Ah, ci tool yi tey foog naa ne sang bi def ci indi lu kenn indiwul. mooy tool yi tey bare na yaatu na. li ci waay mën a tibb kenn mënu am fu mu mais moom dafa ñëw leeral ñu lenn lu ñuy daw ñu ñëpp ñuy alal mu ne alal ñetti kese benn mooy li nga fàggu xéewalu ci ba mu rees li nga lekk mu rees kon tey tamit soo amee alal bu dul jeex lekk bu dul jeex boo ko tegee tamit bu reesul mënu laa njëriñ lu tax mënu laa njëriñ ndax lekk bi rees mooy am jeexital sa yaram mën la indil énergie. Mhm. mën a dooleel mhm. beneen bi mu ne li nga sol ba mu raap. Mhm. waaye tey bariwaat na ñiy daje ay wëlisu yére waaye bu yàlla defoon tey nga wàññeeku fi dañ koy jëriñoo la jox sa lu waral <laughs> mag ñi daan ne yàlla na ràpp ak jàmm waaw kon ñu gis ne ne alal ñaari anam yooyu mënu ci jël lu bare sang bi ne nag ah ban moo ci des mu ne li nga def fi sabilillah est-ce kon tey damay ne ci wàllu tool ya du caagi ne daf lañ daf ñu ne bu leen ut dara mhm. ndax léeg ma dégg tey ay mbokk laay di wax ah bàyyi laay de ut loolu leen alal mhm. ah man de sama jàngat bu ndaw mhm. jàngateew ma ko noonu ndax dafa régler di ëpp solo mooy njëriñu alal ndax tey barewaat na ñu ci am di fàggu lu dul jeex te xamuñu sax ku njëriñ kon njëriñ ji mooy fii yu gis ne nag tool bu nga xam ne ne am na fu mu tàmbalee amul fu mu yem kon tey pour bañ a guddal suñu ne kër ga hmm. am na lu ñuy xaar suñu ne jàkk ja am na lu ñuy xaar suñu ne tool yi am na lu ñuy xaar macha kon yooyu su ko nit ki mooñaalee damay ne amul foo mënta egg mais li gën a yéeme mooy bàyyi laay programme bu mu indi programme mu yar bu matale la mm-hmm. ndax li ci yéeme bàyyi laay daf ñu waajal ñun suñu wàllu bopp mooy li ma doon wax sànq balaa mu ñuy tëral tëralu diine mm-hmm. ndax bu ñu ñëwee ci ay jàngaleem ci xutba yi mm-hmm. tàmbaliwu rek ñëw ci digal ñu digal ñu dëgg dafa ñëw tàmbali jaar fi ñu jaar léegi léegi mooy ne ah wax na waxu nit indi catégorie nit ki góor jigéen mag ndaw dëgg ci message ba mu paree li am solo liñ ci jàngat mooy ñaan dafa ñaan jàmm bàyyi laa ñëw rek ne suñu borom nee na nangam bàyyi leen nangam def na nangam dafa ñaan jàmm ba mu ñaanee jàmm dafa nemmeeku ñett yi ma wax kër ga jàkk ja tool làmboowaat yëpp ne ndax loolu yëpp a ngi ci jàmm mm. soogu dugg si ñu waajal suñu bopp tàggat suñu bopp defaraat suñu ay pas-pas mm-hmm. ngir lan ngir yàlla ak ko bu mm-hmm. yemul ci loolu mm-hmm. mu ne leen nañu bëggante nañu soppante balaa muy wax waxu diine lii mooy diine donc bi nga xam ne moom la tekk alayhi salaatu wasalaam pour diine mooy mooy laayante ngir boobu ngay wax nga xam ne day jëm ci suñu borom jëm ci ab yonentam jëm ci ab téereem jëm ci kilifay diine yi ak mbooloom jullit ñëpp waaye nit mënul laaye biir li nekkul ci moom dëgg la moo tax sang bi waajal ñun ba ñu mën a taxaw pour ñu mën a laaye biir mu mel ne ku biir mënta nag waaw jafe na léeg-léeg nag nit ki bëgg ko kon damay ne tey li am solo mooy xam li nga xam ne mooy programme sang boobu ndax tey foog naa kenn ku ne ci ñun. Mm-hmm. am nga portable. waaw léeg nga def TikTok. léeg nga def Facebook léeg nga def leneen. mu nekk programme bu ubbeeku. Mm-hmm. di doxal yu yéeme. waaye lan moo nekk ci ginnaaw programme bi ñan ñoo programmé loolu. c'est une solo. macha tey ci wàllu yar ñu taxawee ci noonu maanaam xam ni ñuy programmé ndax li may wax ku mënul tabax du mën a toj. Mm-hmm. ci wàllu doomu aadama tey bare barewaat na lu ne ci ñun bëgguñu ko waaye naka lañ def ba dindi ko pour ñu dindi ko faw ñu xam nu mu fa duggee kon yar nekk na ci déggin lu oyof waaye mu nekk lu yaatu ci doxali waaye diine daf ñu ko oyofal ndax dafa ñëw nañu lii nekk leen ci lii bàyyi leen ko référence boobu su amee nit ki nit ci toftalu mooy ay valeur am ay xar baaxam te dama ne tey valeur centrale bu sang bi indi mooy jàng. jàng jàng éducation. xam naa da ngay euh, yaatal ci point boobu. waaw éducation tey dañ ko dañ ko tënk ci hmm. instruction. waaw mais comme ni mu ko waxee sànq nit ki xam-xamam du mën a am jeexital bu yiw. lu dul ay jëfam jiitu baax ay jikkoom jiitu taxam ndax ki nga xam ne ne buñ na yar tey mooy tabax jikko waaye naka na ñuy tabaxee jikko tabax jikko li ci jiitu mooy ngay tabax xalaat di xalaat xalaat yiw di xalaat xalaat yu baax tabax jikko bokk na ci ngay tabax say jëf yu baax. Masha tabax jikko nekk jeexitalam mooy yow ngay am ay yëg-yëg yu sell yiw ndax foog naa ne olof Njaay dafay ne koomu biir moo ëpp doole koomu biti bari wan na tey ku nga xam ne ne yaa ngi koy ñëwee te li nga yore mat na junni yoon lu mu amee lu ko waral dafa am koomu biir te foog naa ne bokk na ci li bàyyi lay alayhi salaatu wooñu ndax bu ne ànd ak waa àddina mooy li ne ci biti waaye bu mu egg seen xol boobaa day fekk li ne ci biir moo ëpp doole li ne ci biti waaye barewaan na tey ñu nga xam ne ne xamuñu sax wàllu biir boobu nan la war macha allah Cheikh Daouda mën ci liggéey mm-hmm. jërëjëf macha allah defe naa day méngoog li bàyyi waas ña ngi wax ni xam-xam lu muy jëriñ mu ne lu dul jëfe ko waaye boo paree nga digal ko saw gaay mm-hmm. te waxoon na ni aussi bërib xam-xam mm-hmm. nee na taxul mën a dem ndax li tax taxul war a mën a dem mooy yoon wa nga xam ne fa ñu war a jaar pour àgg dafa am borom suñu borom moom moom yoon wa dafa am ku mu ko denk mooy Muhammad bi nga xam ne moom feeñ ci ñaari wàcc waayam jàngal ñu jàngale yu yéeme yu rafet yi kon ci sa tàggatoo Cheikh Daoud euh, lan mooy li nga xam ne moom ngay moom nga ñu denk di ko denk sa bopp di ko gën denk surtout communauté bi nga xam ne tënku nañ ci jàngale Seydina Limaamu alayhi salaatu wassalaam par ak yar bi nga xam ne yàlla moo ko jox dénk ko ko jox ko ndigal mu jox ko waa jamono ñu ñu taataan ko ci ay loxoom lan moo ñu war par rapport ak loolu. waaw foog naa li ñu war mooy ñu àndandoo relever défi bi ñu woo ndax bàyyi lay alayhi dafa ne roy leen ma ci jëf ak ci jikko hmm. balaa muy wax loolu dafa ne du ngeen ma dab ci li ñuy digal hmm. kon pour man tey liggéey bi ñu woo mooy ñu def yitte duñ ko dab naam mais ñu def yitte jege ko waaye yitte boobu damay ne faw mu nekk defi bu ñu àndandoo nekk lu nga xam ne ne tey ku nekk day dem sa yoon jéem ci xuus ndax tey bëriwaat na diine ji lu nga xam ne ne sooxe na ndax ànduñu tàppoo tàggatuwandoo pour mën a egg ci loolu. macha kon li may ñaax sama bopp di ko ñaan ñëpp. mooy ñu àndandoo dellu ci li nga xam ne mooy jàngale Baay Laay mooy programme bu mu indi alayhi salaatu wasalaam mu settantal ko ndax la may wax ne ne xam-xam bare nañu ci bëri xam nañ dara di ko jëfee te comprendre ñu ko kon tey day am solo ñu taxawaat lépp lu mu ci programme bi ndax détail bu ci nekk rek lu ñuy wax donte benn araf la lu am sang bi nee na na sax te sell mhm. kon tey donte dañ doon taxaw ci jàmm rek buñ ci liggéeyoon mën na am jeexital bu yaatu kon fa la ñuy daanalee di am yaakaar ne ah as tuuti bi ñu xam ne tey rotal nañ ko fi mm. dina am jeexital ba nit ku nekk mm. mën a taxawaat mm. xam li nga xam ne ne mooy mission am ci kaw suuf ndax damay ñetti laaj a lan mooy sa ci kaw suuf lan nga bëgg sa dund ak lan moo lay xaar alaxira est-ce que macha allah jërëjëf Cheikh Daoud xam naa ñu tëj tëje foofu jotaay bi mooy lan mooy sa mission ci kaw suuf ñaareel bi di. lan nga bëgg sa lan nga bëgg sa àdduna ñetteel bi nag lan mooy li lay xaar ëllëg ndax ëllëg li ñu xaar defe naa mooy daje ki nga xam ne moo ñu fi indi woon muy suñu borom te dinañu laaj nag dund gi ñu ñu xeele wala xewale woon lan lañ ci def bu dee tànk yi lan lañ ci dox bu dee loxo yi lan lañ ci yootu bu dee xel bi lan lañ ci xalam. ñu ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiix ba ñu tënku ci jàngale sang bi nga xam ne moom la ñu tànnal indi ñu ko mu doon suñu kado te nag nekk cadeau bi nga xam ne mooy le cadeau ultime bi nga xam ne defe naa bu ñu profité wul ci moom amaana lu bëri ñu rëcc Cheikh Daoud amoon nañu mbégte bu baax sax ak yow jataay xalaat naa dina am yeneen jataay yu gën a yaatu ngir mën a gën a xuus ndax bépp point boo xam ne daanaka euh, wax ko ñu ko rek mérite nañu toog gën ci waxtaan di ñaan suñu borom mu defal ñu dégg ak topp mbokki loolu mooy li ñu lay indil ci seen numéro bu njëkk ci Daara Limaamu ngeen xaar ñu ci deuxième bi nga xam ne incha allah dinañ ko séq ak yeneen i borom yu xam-xam wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin